Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé gars, et chaque fois de partager des informations. Hein. Mbokk Sénégalais yi fépp fu leen mën 14 régions du Sénégal à de këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngi war ak jàmm ñi ci yi nga erreur judiciaire ak génn ngeen deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa tegaat leen ci yoonu dëgg ngeen jub jubal leeral ngeen tëdd àdduna suñu borom xaar leen fi gars on avance ensemble dans la magie de eSport TV gars l'actualité en

continue actualité bi nag li ñuy waxtaanee mooy ki nga xam ne mooy Sadio plutôt Sadio Mané ah hein, yaay jàng jégalu Sadio magnifique Mané Kaiser Mané bi nga xam ne suba lañ ko xaar du côté de la Bavière pour mu reprendre ak hein, également ki nga xam ne mooy Kalidou Koulibaly Juventus di insister ak aussi Moussa Niakhate bi signé officiellement du côté de euh, donc Nottingham Forest la ñuy waxtaanee mais d' abord Boniface donc remercier waa fédération euh, sénégalaise de basketball dañ ne dàq ki nga xam ne mooy donc Boniface Ndong avec cette image de nos confrères de Tagat SN mais li si gën a graaw li si gën a ñaaw gars yi mooy selon les informations kii

championne d'Espagne avec, bien entendu, le FC Barcelone. de la femme blessure pendant ce temps aussi Aline Badara Fati meilleur gardien de la Ligue 1 sénégalaise membre Kotan, champion d'Afrique champion du Sénégal euh, également vainqueur Coupe du Sénégal Aline Badara Fati donc une année carrément Fati pour Aliou Badara Fati fatidique mais quand même avec beaucoup de réalisations pendant ce temps également qui a un nom de Lamine mine def ko meilleur joueur également de la saison le Casasport Gaï, ramassé Nelep amassé Nelep, Loham Netaï, xam trophée moom mooy raya, ñoom donc donc wax félicitations également à Lamine Jarju bi nga il a été sélectionné avec l'équipe nationale locale du Sénégal pendant ce temps wa Cameroun ñom dañu am fulla fulla fayda jom lañu am ki nga xamné mooy Samuel Eto'o dafa romb contrat ak ñi nga xam ne moy donc ñi di coq sportif da di def appel avis d'appel avis d'appel d'offre plutôt gay pour tànn keneen ki nga xamné mo leen di solal ay yéré solal ay mayo donc nak ci loolu la ñek bi fii une semaine le avis d'appel d'offre bi di jeex parce que ñom dañuy wadjal li nga xamné moy donc coupe du monde bi ak donc semaine bi ay quelques d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après en tout cas le Nigeria pour ne fi mu avis d'appel d'offre bi fallait lay pendant ce temps également le sénégalais hein, le français d'origine sénégalaise sénégalaise Bakri Soumaré nga il était à Lille dem fa xam mooy ca Leicester jamono ji nag moom Monaco moko bëgg a am comme prêt dem na nak fi Monaco daal di visiter li nga xam installation L'objectif c'est qu'ils viennent remplacer quand moy qui est parti du côté de la Casablanca Anthony le brésilien bu au niveau de lajax Amsterdam 80 millions la Ajax Manchester United pour Dalen Koyai film mu donc Manchester ñom nee nañ mënuñu joxe lool motax discussion yi daal nay taxaw mais Anthony Dal, Eric Ten Hag mom la bëgg mu ñëw renforcer attaque pendant ce temps également qui moy Sébastien Haller officiellement joueur du Bayern plutôt du Borussia Dortmund le joueur de l'Ajax Amsterdam dem na fa xam Borussia Dortmund am fa nak contrat bu baax a baax jusqu'en 2026 il sera joueur bien entendu de des jaunes et noirs de Bayern plutôt du Borussia Dortmund gars pendant ce temps moy Hakim Ziyech gis ngeen ko mu sol maillot Milan c'est li nak benn montage mais aujourd'hui le fait que ñu né Sterling mi ngi gëna jëgé Chelsea il se dirige encore lentement fa du côté du Milan AC et ki ngeen di il est arrivé au niveau de Rennes pour remplacer ki nga Alfred Gomis le gardien euh, français bi Marseille nga actuellement avec toutes les années qui a passé au niveau de Marseille donc fi mu ne du côté de Rennes et c'est officiel gis Colin Dagba fa prolonger contrat avec Paris Saint-Germain ba 2025 mais également du fa 2024 plutôt du fait dem fi donc de Strasbourg fa lañ Allé Colin Dagba le latéral français bi nga aujourd'hui il est parti chercher du temps de jeu du côté donc de Strasbourg de Habib Diallo pendant ce temps Skamatcha, le joueur de Sassuolo Gaï, Daydem, Paris Saint-Germain donc Paris Saint-Germain actuellement moom la indi indi Robert Lewandowski pour que Robert Lewandowski n'est titulaire que mu daal di ñëw que doublure sinon bu ñu Lewandowski dañuy jël ki qui a mooy peut-être Kylian Mbappé joué ko neuf moom Scamacha mu que doublure mais il lañ bëgg daal di jëlee ki nga donc Neymar de dafa commenter ben message bu Instagram ben story bu def ce sera la meilleure saison de votre vie moom mu daal koy liker Neymar wala ne aujourd'hui il est déterminé à faire la meilleure saison de sa carrière avec le Paris Saint-Germain Axel Witsel officiellement joueur de l'Atlético de Madrid King nga de ne dafa Borussia Dortmund librement ñu doon wax ben moment né day ñew fi nga xamne à Marseille finalement il est parti du côté donc de Wanda Metropolitano pour jouer pour Diego Simeone le milieu de terrain belge ki nga xam du coup Kalidou Koulibaly de Rock Koulibaly, le roi euh, du Sénégal en matière de défense, donc le king de la défense, le mur de Gorée. Hein, actuellement, le king nga xam Koulibaly moom ak Edouard Ndiol Koumba Mendy ñu l'a laa tuddee donc les murs de Gorée donc moom ñu ngi du côté de la Juventus de Turin la Juventus mi pour daal di koy Napoli na ñoom duñ ko jaay Koulibaly avait dit que moom du mës jouer club bu Italie mais quand même au vu de la situation parce que Napoli dañ ko de proposition boo xam dañuy wàññi salaire il veut changer d'air il veut aller jouer Ligue des Champions gagner un trophée, moo tax sax wóoru je mais mën na dem seen pendant ce temps également donc merci Moussa loolu la donc Mayence daal di defal kenn Moussa Niakhaté leur capitaine qui est parti et qui a filé du côté de l'Angleterre sur Premier League le Moussa Niakhaté dem waxoon naa leen ko signé la waroon dem signer contrat mais tout et c'est fait vous le voyez avec le nouveau maillot la tunique donc de euh, ki nga Nottingham Forest li moy sen euh, pull yi sol sen maillot plutôt t-shirt pour entraînement ak yoy mais en tout cas il est officiellement joueur de euh, Nottingham Forest ki nga xam donc Moussa Niakhaté, Sadio magnifique Mané, Kaiser Mané est attendu gars demain du côté de la Bavière pour Tambali l'Iran pré-saison. Donc demain Julian Nagelsmann va pouvoir disposer du meilleur joueur africain du moment, l'un des meilleurs joueurs du monde, l'enfant de Bambali, celui qui a fait taire toutes les critiques gars du côté du Cameroun, mais également Kiran Monopilo Mohamed Salah, finale Coupe d'Afrique, euh, également éliminatoire Coupe du monde. il va pouvoir porter les premiers maillots qui nga xam Bayern préparé li pré-saison war nañ États-Unis amal fay tournoi Manchester City jouer également finale Coupe d'Allemagne avec ñi nga Leipzig et Sadio sera présent l'enfant de Bambali va pouvoir faire taire les critiques et montrer faire hurler l'Alliance Arena par sa voix et par également son talent Sadio magnifique c'était les informations Où di like la